daje bi nga xamante ni Serigne Mbacké Ndiaye démb amal na ko ak way taskatu xabaar yi mu xamle ni euh, ki nga xam ne moo doon jiitu réew mi Ablaye Wade moom fanweeri oto rek la yóbbu waaye oto yooyu moom moo ko jëndoon ci beneen wàll aussi euh, amul benn càcc boo xam ne def nañ ko fële ca présidence de la république ndaxte gouvernante bi nga xam ne moo fa nekk mooy gérer matériel bi ñu déglu ay leeralu Serigne Mbacké Ndiaye nga xam ne nekkoon na fi euh, secretaire général présidence dañuy randal ay tableau ay objet yomb dafa nekkoon ci palais ñii wax ni budget yi dañu ñëw fekk ñu ci keesu état bi dara ñeneen ñu wax ni ay oto dañu ko luubal kon lu jëm ci affaire tablo yi ñuy wax ak ay objet daal yu ñàkk fayda yooyu ñu wax maanaam wax ji moo ñàkk fayda mbir ma ñàkkul fayda ñu wax ni du benn tablo walla luy niroog moom loo nga xam ne génn na ci pale bi te du président wadd moo ko moomal boppam wala soxnaam moomal ko boppam wala doomam moomal ko boppam puso bu duggee tey ci pale bi am na ko nga xam ne loolu mooy liggéeyam ñu di ko wax gouvernante du palais registre la yor dana ne teykat kat àllarba ci waxtu sangam Modou Diagne Fada indi na benn bic dugal na ko ci pale bi ndax daf ko may présidence wala daf ko may pale bi wala daf ko may kenn ku fa dëkk ñu bind ko ba ñu fay génne karne boobu la ñu teg lu ñu yëkkati ñu ni diw boo ko moom président yaa moom wala président sa moom wala pale bi moom moom lu mu moom mu jël bu ko neexee mu bàyyi ko parce que bari na lu mu fa bàyyi comme ni nga ko waxee léegi beneen bi ci topp mooy ci mbirum oto yi président wadd bi muy ñëw en 2000 mu ngi fekk présidence lu war a mat fukki oto donc 2000 ak léegi ci fukki at yi ak ñaar li nga xam ne dugal na ko fa ci ay oto bu ñu seetee li jóge ci ose yi ñetti téeméeri oto la ak juróom-ñaar yoo nga xam ni yëpp dañ ko immatriculé def ko ci turu état du Sénégal parce que li mat a leeral aussi mooy oto yi li muy bari bari bari lépp relation ak ay chef d'état wala ak ay organisation internationale ñoo ñoo tax ñu mënul ko am donc yoo nga xam ni ñeent fukki oto la ak juróom-benn chinois yi ñoo ko mayoon ñu séddale ko atekat yi bi mu fay jóge président Abdoulaye Wade la mu fa jële ci oto mooy ñett trente fanweeri oto yoo nga xam ni turam a ci nekk carte grise bi Abdoulaye Wade ci nekk benn ba sax Macky Sall moo ko mayoon en 2008 mu nekk ci turam. gouverneur bi yore pale bind décharge wane ni fanweeri oto yi yaa ko moom jël ko nga yóbbuwaale kon oto yooyu ku ci topp di ko nangu it liñ naan sàcc ndënd yomb na mais foo ko tëddi tëggee dina la tëgg